jinni ko joxa sibo jam me kam nangan sambu kon adama fa awa sun ngor el simale we waaw waaw he he mbine def do fi na ko mais jële sa mbër bi waaw waaw kon adama fa axe ngok el ko cox jinni li ma jaaxal jinni dafa xaw a jeex xanaa jinni daaw loon sport gayna ko bi xanaa jëne la ko protéine wala def do a da nga bàyyi tubaru sa mor bi waaw waaw kon Adama Faamal kon i jini